du chemin euh, pour pour acter le, le, report président de la République war na ko war war na ko promulguer bu ko président promulguer sans doute que euh, dinañu ak attaquer décret bi au niveau du conseil constitutionnel on peut encore espérer le, que wow, le président de la wow. République ne promulgue pas quelles peuvent être les conséquences s'il ne promulgue pas le décret mais kon kay ñu dellu statu quo te loolu mooy yoon ñu dellu ñu dellu statut ñu si élection vingt cinq février man am naa yaakaar ne loi bi moom bu kon nombre député yi ñu yoon may ñu attaqué ko mooy dixième dixième composition assemblée nationale te loolu dina am kooku moom mën naa la ko garantir ñu ngi si li ñu ngi si li eh, ñi ko si war liggéey ñu ngi si liggéey li ñu saisir conseil constitutionnel pour inconstitutionnalité mën naa la sax annoncé leneen suba wala gannaaw suba man maa ngi liggéey fukki candidat yoo xam ne dañu dem déposer seen recours pour excès de pouvoir cour suprême waaw donc parce que pour attaquer décret bi abrogé décret convocation corps électoral am na teguñu ko fenn donc recours yooyu ñu ngi yaakaar que justice dana def liggéeyam alors tout ça n'a pas été fait ñenn ñi dañ naan vous êtes trop optimiste tout ça n'a pas été fait pour que le président ne promulgue ne promulgue pas mais bu ñu demee conseil constitutionnel conseil constitutionnel dafay déclarer wu incompétent pour incompétent pour faire la lecture des lois constitutionnelles d'ailleurs ñoom euh, le camp de la majorité prévoir nañu euh, possibilité boobu euh, c'est une tradition euh, au, Sénégal le Conseil constitutionnel ne s'exprime pas sur la régularité sur la légalité des lois constitutionnelles. ah man de si sama gis-gis man duma spécialiste. y a-t-il des chances. gëm naa gëm naa ne am na ay chances yu sérieuses. parce que pour que conseil rejeté ko. oui parce que bii c'est quand même situation particulière la xam nga attaquer une loi constitutionnelle comme ça ou une loi qui remet en cause fondamentalement. des disposition constitutionnelles intangibles. Euh, attention et puis la question qui se pose sa que assemblée dafa dafa amul pouvoir boobu assemblée nationale dafa amul pouvoir boobu loi constitutionnelle dafa am c'est encadré dafa am lu muy jëriñ waaye loi constitutionnelle boo xam ne pour jalgati constitution bi ñu ne non non non bu dee loi constitutionnelle rek conséquence du ko toppatoo gëmuma ko. mais li dañuy fàttali un peu le précédent de 2016. 2016 mm-hmm. le président mu ne mu dugal. Euh, ne dafay wàññi mandaam conseil constitutionnel ne dafay créer un précédent dangereux mandat bi mënu ko yokk mënu ko wàññi à l'époque les gens n'étaient pas d'accord il disait que le conseil constitutionnel euh, dafa dafa dafa dafa est dans la et dans la connivence euh, dañoo waroon a euh, statuer euh, demander à ce que Macky Sall respecte son serment et aujourd'hui on est dans le même cas de figure mm-hmm. euh, lan ngay espérer euh, comme décision c'est-à-dire aujourd'hui il s'agit de yokk le mandat ah euh, ah du, président de la République juste... frappé de la cause de la clause d'éternité xam nga dafa am disposition article 92 constitution bu ne les décisions du conseil s'imposent à tous décision boobu nga doon wax li mu wax leer na jurisprudence la mandat bi kenn mënu ko yokk kenn mënu ko wàññi donc conseil constitutionnel loolu jurisprudence am la bu sukkandu ko ci loolu warul maye benn loi loi scélérate constitutionnelle jël am pour effet yokk mandat président président mandat am jeex mu toog te tegul ci dara te président fii Sénégal jëkk yëpp pour euh, euh, euh, élection koy joxe élection koy joxe tey si foqati la ñu nekk foqati suñu droit ñun citoyen nañu seen seen droit dooleen ko exercer à partir du 2 avril Macky Sall amatul statut président parce que statut boobu élection rek ko mën a joxe assemblée nationale mënu ko jox loolu xel mën na ko jàpp élection rek moo mën a joxe statut Euh, président assemblée nationale munu gisuma fu muy teg fu mu ban base dama ne day jox nit fonction président amul base foqati la moo tax ñu ne c'est un coup d'état constitutionnel ñu war ci dellu ci ba xam nga nag même booy jéem a sàcc bu ñu la jàppee dellu gannaaw dara nekku ci nañu delloo seen xel di dara jaru seen intérêt égoïste yooyu Sénégal moo ëpp seen intérêt égoïste yooyu ñu toppatoo bu fekkee ne Sénégal itteel na leen nañu dellu gannaaw tant qu'il est encore temps mën nañ waxtaan juumte mën na am mën nga sax dem jalgati ñu jàppale bu ñu jàpp bàyyil parce que li dafa rëy fu ñu toogee ba Sénégal yépp à part PDS et une partie de la l'APR parce que ce n'est même pas tout am na waa affaire yu génn à cause de ça c'est-à-dire ku defee li avant Marie Coll Seck génn na euh, euh, Zahra Iyane Thiam génn na. am na sax. ñoom ñaar sax ñu leen hommage parce que ils ont eu des attitudes dignes am ay principes ñu bëgg a nga génn donc c'est un P APR fracturé un PDS réduit à sa plus simple expression mais ñaari entités yooyu ñu bëgg a lëmbal réew mi c'est par pour des raisons de intérêt politique. jël des intérêts individuels bëgg ko en fait kii le euh, manœuvre dañu jël des problèmes individuels des intérêts individuels bëgg ñu ne intérêt c'est des questions d'intérêt général c'est purement factice seen problèmes biir APR seen problème suñu yoon nekku ci bu ñu jëlee seen candidat dem ba ci biir doyu leen ça c'est leur affaire nañ ko régler seen biir ce n'est pas une question d'intérêt général du problème mu Sénégal c'est le problème d'une association parce que APR association dong la Karim Wade bu fekkee ne moom moo jalgati bind këyit boo xam ne li si nekk du dëgg commettre un faux ñu ne ko doo bokk c'est son problème du problème mu Sénégal problème mu Sénégal mooy on est 18 millions de Sénégalais on est plus de 7 millions et demi d'électeurs on a le droit de les de choisir notre président tous les cinq ans kenn waruñu xañ loolu. amul lu ñu xañ loolu mais yaa ngi naan yaa ngi circonscrire problème bi au PDS et à une partie de de de de l'APR mais xam nga président bi mu defee déclaration bi tout suite dañoo dafa ne dinañu def dialogue ñi wuyu appel au dialogue boobu nangu dem appel au dialogue boobu ça dire que entériné nañu. ñan euh, ñi ñi les candidats. yi nangu. les candidats recalés les recalés. ak euh, ak yeneen candidats. yi nangu dem ci appel au dialogue boobu ça veut dire que ñoom entériné nañu euh, report bi est-ce que quelque part dafa j'ai l'impression quelque part que report bi euh, arrangé wul kese la majorité arrangé wul kese le parti démocratique sénégalais am na tamit ñu mu arrangé Euh, ci parti opposition yi et loolu moo tax jeu bi xaw a sombre. non non non non ñu mu arrange parti opposition. c' est quelques candidats de l' opposition du recal d' ailleurs du recalé am nañu ñu recalé ñu jiital intérêt Sénégal fàtte seen bopp. nee nañ dem ñii ñu recalé ñenn ñi parce que man ñaar ñett laa ci dégg ñu ne waaw bu ñu wootee dialogue nañ dem wuyu pour ñu rétablir suñu droit. nañu fàtte suñu bokk loolu c'est de l'ego fi mu nekk c'est le c'est l'intérêt du Sénégal qui est en jeu du Sénégal qui est en jeu qu'est-ce que vaut nos petits égos là waaye bu ko kiiwee man ma mun a munaat bokk par rapport aux à l'intérêt général cette tension jar na ko ñetti ñooñu ñoo wax nga dégg leen mais ñu ci bari ñoo xam ne bëggoon nañu bokk ñu rëkkale leen seen discours ci suuf mooy ne nañu baataraat carte gi. mais xam nga may euh, Maïmouna yow yaa ma gën a xam la classe politique ñooñu ban représentativité lañu am ñi am ñi am représenté politique xam nañ leen nag yow tamit dëkk bi lañ dëkk ñi am représentativité politique si dëkk bi ñëpp dañu bëgg a dem élection. y a des partis qui sont dans le gouvernement yoo xam ne c' est des partis traditionnels traditionnellement très représentatifs même si aujourd'hui le représentatif dayetul noonu. les partis de LD PIT. El Hadj parti wu El Hadj Momar Samb AJ PADS ànduñu si. pourtant PIT mu ngi si gouvernement bi ils ont signé euh, une déclaration commune euh, déclaration commune. pour contester le report xam nga tey ak média yi wax dafa yomb wax day dañ ne ku wax rek ñu defee ne kii nii la day na lu nekk te du te du du pikini yow yaa ma gën a xam réew mi ci représenté politique très sincèrement. ñooñu ngay wax ban représentatif la qu'est-ce qui pèse il pèse pas grand-chose dañu waxante dëgg c'est pas parce que tu as la possibilité de dire je vais être candidat que tu pèses quelque chose donc ñooñu bu ñu gëtan nañu bu fekkee ne Sénégal la ñuy waxal nañu fàtte seen bopp la leurs petits intérêts égoïstes et puis pour crédibiliser loo xam ne c'est et puis quand ku bëgg Sénégal nag ngay nag nag ngay ñëw pour tes intérêts personnels di cautionner un coup d'état constitutionnel pour man tu es indigne de se de présenter à la à la présidence de la république ku def loolu tu es indigne de prétendre aux fonctions suprêmes kenn warul accompagner un coup d'état constitutionnel kenn warul accompagner un putsch parce que c'est un putsch aujourd'hui la seule différence en le putsch bi ñuy bi nar fii le à partir du 2 avril parce que jusqu'au 2 avril Macky Sall et d'autres président kenn discuté wu si se maintient à Patte de la Ville c'est un putsch en costume cravate la seule différence ak ñeneen ñi le yi la ñuy sol moom costume cravate lay sol mais c'est un putsch loolu nag ah ñun nag sénégalais yi ñun xamuñu loolu te gàkkal na suñu suñu suñu. suñu réputation suñu way gàkkal.